Ousmane Sonko ak sorti bi mu def ci guddi mu ni nañu génn dem euh, jàmmaarloo foofu mu ni fitna la bëgg a yee foofu ca ca ca Ngor donc mu nekk loo xam ne euh, gis nañu maire maire maire maire euh, diwaan boobu mu yëkkatee ay kàddu rafet rafetluwul lool te ñu bari également rafetluwuñ kàddu yooyu nga xam ne moom la Ousmane Sonko yëkkatee. non c'est que c'est que ku mel ni moom lay moom lay wax ñi nekk ci nguur gi ñi nga xam ne jiite réew mi. Hmm. ak politique bu ñu mën di féete ak lu ñu féete suuf ci wàllu politique. fokk ñuy am dépassement ci discours homme politique te bañu def seen bopp yi benn complex ci opposant comme Ousmane Sonko wala comme keneen histoire au Sénégal à chaque fois mu am yu mel nii parti politique dañ ciy joxe seen xalaat mais mënu la tee déroulé Ousmane Sonko dëkkul Ngor Ousmane Sonko bi wax sax Ngor da ko jaawale ko quartier te ñëpp xam ne ñi miin Dakar village Ngor la ñuy wax nga xam ni kon kii miinul Ngor mais homme politique la foog mu joxe ci xalaatam loolu wërta mën a tax état di trembler wala ñi nekk ci ay autorité locale yi foofu di trembler pour tontu Ousmane Sonko wax ne dina am beneen autorité bu wax ñun ñu ngi ciy wax ci suba ba léegi presse bi ñëpp ci la ñu bind. mais mais Ousmane Sonko waxee après dañuy mel dañuy jànnaxe. sa du moo tax ñu réagir ci saa si woote. sa pose problème. Mm-hmm. c'est que nag il faut ñu il faut ñu. Ousmane Sonko ci seen tànk. ñoom ñoo ko transformé ndëkk def ko seen tànk Ousmane Sonko sénégalais la citoyen la comme tout le monde ku am droit joxe xalaatam ci bépp situation bu am ci réew mi di ko déplorer. foofu tey muy def ay vidéo di génne mais bu njëkk li doon am mooy euh, parti politique yi fi nekkoon yëpp dañu doon am ay réunion hebdo comité directeur bu ñu noppee ci réew mi ke te loolu maa ngi maa ngi continuer toujours di ko demander bu dul woon situation bi am nga tey Euh, yeneen jafe-jafe yi ñàkk gi nekk ci monde rural bi souffrance ñu nekk ci kaw gi suuf yi ñuy nangu mais parti politique yi dañ ci war a joxe seen xalaat dañ ci war a wax lu ñu njort parce que loolu mun na nekk orientation bu mën a dimbali nguur gi Ousmane Sonko li mu wax ci wàllu euh, situation bi am ngor moom la keneen wax mais bu ñu jël gis nga dañ wax dañ fexe coow li nekk ngor jeex au lii ñu jël propos Ousmane Sonko bëgg ko def benn support pour minimiser ko coow li nekk ngor mm-hmm. dama laataa Ousmane Sonko di wax laata keneen di wax bakken moo rot man loolu laa xëyee tey yuuxu ko bakken moo rot te ginnaaw Ousmane Sonko wax na dina am yeneen i njiital parti politique yu waxaat pour dénoncer ce qui se passe bakken yi rot ci loxo yi way takk der yi loolu dafa war a takk. Birahim je pense que situation. bu ma bàllee jàll. voilà vas-y ci ci Birahim beneen tam. Mm-hmm. Euh, je pense que situation ngor bi. Euh, nekk na loo xamante ne comme ni ko Birame di waxee c'est c'est vraiment alarmante. Mm. Euh, lan moo